Denis Ndour maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa yow nag ngay njiitu Ligue sénégalaise des droits humains euh, ñu gis nag ndaw bi nga xamante ni moo ngi wuyoo ci turu Mouhamed Diop mu ñàkk bakkanam ca Pikine ginnaaw arrestation goo xamante ne ay takk der def nañ ko ñu dóor ko euh, dóor gu metti ba tax rek mu ñàkk ci bakkanam nan nga jàngatee lu ni mel. waaw loolu dañ koy naqarlu te di jaale ay way juróom euh, ndax loolu lu métti la jàpp nañu ne. Oh, ay takk der bu ñu buggee jàpp nit wala ñu bëgg ko yóbbu war nañ ko def ci anam boo xam ne dañuy respecté ak ak yelleefam loolu nag yàgg nañ di ko wax euh, waaye souvent duñ koy respecté gis nañ sax ne souvent su amee ay manifesté euh, day faral di am ay battanu ci rot lool nag lu lu ñuy euh, ma jàpp ne ñun dañuy woowee suñu bopp état de droit état de droit mooy réew boo xamante ne yoon ñëpp la fi nekkal te kenn sutul yoon même président de la république sax mënul tegu ci kaw yoon te gis nañ ko ci bi ñu bëggee toxal élection yi li fi xew ñu yoon taxawee pour wone ne ñëpp a yoon ci yoon ah ma jàpp ne nag loolu lu ñu war a la ndaxte euh, bu ñuy wan ni ñi nga xam ne seen bakkan day ci mbirum torture ci mbirum arrestation dafa dafa jéggi daayoo te boo xoolee Sénégal dafa ñàkk yoon bu ñuy wax ci mbiru àq ak yelleefu doomu aadama depuis 2012 te boobaak léegi ah, mënagu koo jot fële ci Genève ci dëkk yi ñu ràññee ne ñoom ah, seeni dëkk wax dëgg yàlla àq ak yelleefu doomu aadama ah, ñu ngi koy fay doxal ci anam yoo xam ne mucc na ayib donc ma jàpp na nag dara weesu yàgg nañu ko di ko ñaxtu di ko bind ci ay communiqué waaye bon mel na ni communiqué yi juragul daal lañ ci soxla ah comme nag am nañ yaakaar ne am na régime bu bees bu ñëw yaakaar ne xëy na ñooñ bu ñu ñëwee dinañ def ay jéego pour que ñu mën a dindi ah, li nga xamante ne moo fi sax di bavure policière nga xam ne souvent manifester bu amee rek mu am ni ci rot te ci bakkani ci rot te du mujj fenn mujj fenn mooy souvent dañuy ne dañuy teg commission commission nag du ko moo koy réglé li koy réglé mooy procureur ubbi enquete te loolu la ñuy ñaan mu def ko nu mu gën a gaawe pour assurer nit ñi ne ah au moins am na benn enquête judiciaire bu ñu ubbi pour wane ne jii dinañ ko topp ba ki nga xam ne moo def njombe kooku yoon mun ko daan comme nu muy daane ñeneen ñëpp ah ndaxte c'est pas parce que yow wooy takk der nga rek lu la neex nga def lu la neex ku la neex nga ah, ku la neex nga violenté ku la neex nga torturé déedéet ah, ndax yoon moo ne ñëpp ñoo ci yem képp ku def loo xamante ne suñu sartu daf koy tere ah yoon dafa war a dal sa kaw. Ah, bu ñu sukkandikoo nekk ci certificat de décès bi mu mel ni am na ay complications ah, gi nga xam te ndaw googu lii am na ko waaye tamit traumatisme mu mel ni mbir mi daal ah, doy na waar tey tamit jafe-jafe gi bëri woon na. waa doy na waar mais damay wax rek ne du du bees parce que euh, yu mel ni day faral di am des fois sax nga gis manifester ay blessé grave. te dañuy mujj après euh, succombé maanaam dañuy mujj après faatu di fàttali euh, sànq mbirum torture maanaam nit boo koy arrêté sax dafa am noo ko war a arrêté am na anam yoo xam ne ñu ngi ko war a ba nga xam ne da ngay sàmm dignité orma nit ki da nga ko war a sàmm parce que nit ki c'est pas parce que def na njombe rek da nga ko war a jël mu mel ni nekkatul nit nga di ko def loo xamante ne dafa mel ni mala nga nga nga nga jàkkaar loolu nag lu ñu war a mën a euh, dàq la ci suñu doxalin ci suñu république maanaam dañu nekk république te république dafa am lu muy laaj ci ay doxalin. alors ndax waruñoo gën a tamit respecter lii di ak yelleefu doomu aadama. bien sûr parce que nee naa léegi ne ñun Sénégal euh, daf ñuy dañuy jox note note bi A la wala B A bi mooy yow yaa ngi sàmm ak ak yelleef mais ñun ba ñu joxee B ba léegi mënuñu delluwaat suñu note A. ndax lan parce que ba léegi a ak yelleefu a doomu aadama dafa sooxi ci réew bi waaw donc des fois ñu def ay jéego yu bëri nag ci mbirum démocratie ci mbirum leneen ak leneen waaye ak ak yelleef doomu aadama dafay sooxe am nga souvent sax bu ñu wax ak ak yelleef doomu aadama nit ñi dañuy xalaat rek droit civil et politique te loolu mooy politique yi rek lañ ko jagleel daanaka euh, mais boo xoolaatee li ñuy wax les droits économiques sociaux et culturels mooy li gën a soxal askan wi doomu aadama ci ni ñuy dundee ci seen i koom ci seeni seen euh, euh, i warugar ci seen i liggéey et cetera loolu euh, souvent duñ koy fësal ma jàpp rek ne ah mbirum ak yelleefu doomu aadama moom lu ñu war a taxaw la ah gis nañ ne sax président bi signé na pacte de la bonne gouvernance démocratique nga xam ne dafay nekk bataaxal bu tënk conclusion assise nationale ak CNRI ma jàpp ne ñaar yooyu wax dëgg yàlla dugaloon nañ fa ay ay réforme yu am solo ci mbirum justice justice donc bu fekkente ne moom déjà engagé wu na ah am nañ mën nañ am yaakaar ne kon mbiru àq ak yelleefu doomu aadama dina dina dina tane mhm. euh, rawatina nag euh, lu jëm ci euh, comité sénégalais des droits humains ah mu war ñu war ko changé nag def ko commission comme ni ñu ko defee ci yeneen réew yi mu am benn indépendance am boo xamante ne dina doxal Euh, pour euh, pour mën a liggéey pour sàmm ak ak yelleefu doomu aadama réew mi ah moom sax ci ci benn communiqué dégg naa mu naan euh, corps de contrôle yi dañ leen di bàyyi moomal seen bopp pour mën a gën a def seen liggéey jàpp naa ne comité boobu may wax aussi lu lu lu lu war a mën a def boppam liggéey la aussi pour ñu pour mu mën a wax dëgg yàlla situation ak ak yelleefu doomu ci réew Mhm. alors li jëm nag ci euh, bavure euh, policière gis nañ nag ne def ci gën di bëri di gën di fës waaye du am benn suivi lan mooy waral lu ni mel. waaw li koy waral mooy rek mooy naan dama gis jàpp ne solidarité de corps dafa am parce que tey ñi bokk sax ñoom ci ci takk der yi ñoom ñoo waral bañ ne euh, ñu takkal leen seen seen biir ne am na ku def dara ñoom ñoo war a am pour jóg ne ki def dañ ko war a sanctionné loolu. moo fi xaw a des parce que souvent dañuy ne rek commission am na ay enquête mais euh, du du ñu xam fu muy mujjee que nag ñu jugé ko ci tribunal militaire wala tribunal civil euh, man jàpp naa ne li ci am solo rek mooy nit ki euh, ñu jugé ko te li nga xamante ne moom la def ah ñu gis ne wax dëgg yàlla yoon ñëpp la fi nekkal parce que tout caagane parce que way takk der nga rek lu la lay nga def wala wala boo defee dara dara du la ci fekk voilà loolu moom wax dëgg yàlla lu ñu war a rectifier la euh, te jàpp naa ne bu ci buñ ci farloo euh, dinañ ko mën a def alors am na ay ndaw nag yoo xamante ne génn nañ ngir mën a fësal seen nakar ca Pikine euh, ginnaaw décès bi waaye loolu yi ndax raison la rek ngir ñu saccagé waaye tamit taal busu Dakar dem dikk ndax waruñu woon am neneen lu ñu doxalee waaw wax naa ko sànq man jàpp naa ne waxambaane seen mer la ñu topp rek waaye sa mer aussi mën nga ko exprimer ci ci anam yu yu bari mën nga sa mer mën nga ko def wone ko ci taalif mën nga ko wone ci woy mën nga ko woy ci dox ñaxtu mën nga ko wone ci sitting mën nga ko wone ci anam bu nekk waaye nga bañ ko wone ci violence parce que violence baaxul te violence li ñuy wax euh, ay bi yem ci boppu boromam donc euh, mën nga mën ne lii def fa mu ñëw nekk conséquence boo xam ne daf la ñu affecté beneen bi mooy euh, bu ñu attaqué édifice yoo xamante ne euh, c'est des édifices publics wala ay biens publics loolu aussi dafay wane benn manque de civisme loolu nag mbirum éducation la à la base d'abord dans les familles mais nañu continuer aussi di leen ñaax euh, en tout cas man loolu appel boobu laa leen di lancer ku mer na nga exprimer sa mer waaye bu ko exprimer ci violence parce que violence lu muy jur du du doon luy jàmm euh, voilà ñu ñu am dal waaye aussi loolu li koy gën mën a andi mooy euh, procureur autosaisir pour wane ne ah li kat du ma bàyyi mu dem mu naax saay dinaa ci def li ma war pour que justice soit faite bu boobaa dina calmer un peu les ardeurs mais bu fekkee ne kenn deful dara aussi loolu aussi day xaw a day xaw a mer bi day gën a des Ah, beneen bi mooy ñun en tant que kuréel àq ak yelleefu doomu aadama ñu ni mel su amee dañuy jege famille bi euh, masawu leen d'abord ba pare ne leen nag on est à disposition pour les accompagner juridiquement ci mbirum avocat wala ci conseil juridique mais loolu aussi ni ma koy waxee euh, le mot appartient à la famille euh, ci ñoom rek la ellaw parce que gis nañ fi ñuy accompagner ñu dem ba si digg bi ñu jox leen xaalis ñu ñu génn ci voilà donc euh, jàpp naa ne daal euh, lu ñu mel daal war nañ def tout pour mu dakk biir Sénégal te comme nag dañu am nguur gu bees bi war a ñëw toog ah ñu am yaakaar ne xëy na ñooñu bi ñu ñëwee dinañ ko dakkal. waaye est-ce que LSDH warul euh, gën a am taxawaay goo xamante ni dina jëm ci genre situation yu ni mel. waa suñu taxawaay nag ñu ngi koy fësal waaye aussi dañuy limité li tax ñuy limité mooy ñun ñu dogal ñu am dogal mooy ministre de la justice mooy institution yi nga xamante ne euh, c'est les institutions de l'État donc ñun euh, comme société civile lañ nekk lu ñu mën rek mooy joxe ay directives euh, joxe ay conseils euh, joxe ay tegtal ay recommandations pour que état jëfe ko pour ñu mën a am saafara. alors ndax foog nga ni ay communiqué dénoncé rek doy na ngir mën a régler lu ni mel. non doyul doyul waaye nag jumtukaay boobu ñun moo nekk suñu. seen jumtukaay bi ñuy téye suñu loxo waaw maanaam communication waaye bu fekkente ne euh, état xool na ba ba war nañu mën a yeneen sañ-sañ yu gën a am solo ah loolu aussi day gën a baax rek tax sa day njeexital bi mooy ñuy gën a di aar di sàmm ak ak yelleefu sénégalais yi. Hmm. donc euh, voilà donc li ñu mën mooy li ñu li ñu yoon may a ah, li ñu yoon mayul nag mënuñu ko donc euh, waaye au moins dinañ fësal. ba état xam ne ñun kat ñu ngi koy jox ay recommandations yoo xam ne bu ko jëfee dina ci gis njëriñ. mais nan la ñu war a def rek ngir mën a dalal xelu famille yu victime yi nga xamante ne daanaka saa su ne. ñu ngi dund injustice bi leen. fa fa fa li ñu leen di rek mooy d' abord masawu leen euh, mais surtout def justice maanaam bañ impunité am parce que nit ki sax bu fekkee ne daa def mu reconnaître ne daa def bu ñëwee ba baalu ñu baal ko ñu xam ne loolu diggante ki ñu tooñ ak ki ñaan jéggal. Euh, seen diggante la waaye bu fekkente ne dara amul gisuñu kenn ku ñu topp gisuñu kenn ku ñu jugé ah bu boobaa li muy jur day gën a andi frustration boo xamante ne mën na poussé nit ci mu def naka su dul noonu donc man jàpp naa ne wax dëgg yàlla euh, war nañu andi saafara ci loolu euh, di dimbali famille yi nga xam ne ñoom ñooy nekk victime ci yu mel ni d'abord jàppale leen jox leen dàmpaay waaye ndàmpaay boobu kese doyul parce que doomu aadama bu génn àdduna amoo njëgam boo ko doon jox milliard sax taxul waaye quand même mérité na nga jox leen ndàmpaay waaye warul yem ci ndàmpaay dafa war a dem ba am un procès ñu xam ne kat lii moo xew lii léegi nii la demee kii mooy moo mooy ki ko sooke Euh, voilà daan bi lañ ko daan. alors euh, tey jii nag ak euh, njiit gu yees gi di président de la république Bassirou Diomaye Faye ndax LSDH am na yaakaar rek ni dossier judiciaire yi daan am suivi. waaw am nañ ci yaakaar parce que comme on dit bénéfice du doute nit ki moom tant que waneegul lu mu mën mënaguloo ko xarab mënaguloo ko jugé da nga koy bàyyi am confiance am yaakaar yaakaar boobu nag li tax ñu gën ko mooy. que ne président bi dafa signer euh, pacte euh, républicain bu voilà de bonne gouvernance démocratique bi nga xamante ne dafa lëkkale euh, li ñu tënkoon ci assises nationale yi ak li ñu tënk ci CNRI donc ñu jàpp ne wax dëgg yàlla bu ci tënkoo moom ah, lu bëri dina mën a changer surtout sur le plan institutionnel rawatina nag réforme yi nga xam ne moom la ñuy jagle woon mbirum mbirum justice. alors euh, jamono ji nag euh, ban innovation rek ngeen bëgg moom Bassirou Diomaye fay indi euh, rawatina nag ci ak ak yelleefu doomu aadama yi. waaw bu dee ñun suñu wàll moom li ci gën a urgent pour man mooy ñu régler problème mu comité sénégalais des droits de l'homme moom mujjee nekk commission voilà des droits humains nga xamante ne comme yeneen réew yi nga xam ne dañuy respecté ci mbirum. Euh, ak ak yelleefu doomu aadama Sénégal aussi mën a am euh, situation bu bu ni mel parce que jàpp nañ ne depuis 2012 ba ñu ñàkkee suñu nag ba nekkatuñ ci dëkk yi nga xam ne ñu ngi leen di ràññee ci mbirum respect ak ak yelleefu doomu aadama a ah, jàpp naa ne loolu loolu soxal nañu ñu bu ñu dematee Genève ñu gën ñu mën a xool ak respect xam ne ñun kat ah fii la ñu jógee waaye ñëw nañu ba delloo siwaat ci suñu statut A pour ñu wane ne ak ak yelleefu doomu aadama ñu koy respecté biir Sénégal donc jàpp naa ne daal comité boobu bu ñu ko yeesalaatee jox ko nag sañ-sañ bu doy ak ay moyens doy mu demal boppam liggéeyal boppam je pense que bu boobaa dinañ ci gis njëriñ suñu njëriñ ñun ñëpp. alors lan mooy sa kàddu gu mujj rek message goo xam te ne di nga ko lancé xëy na ndaw ñi. waa bi may lancé ndaw ñi rek mooy naan lépp euh, sottul sot ci benn bés. voilà dégg loo gis a étape la donc euh, c'est pas parce que nguur gu bees am na rek. Euh, problème yëpp dañu cee régler tout de suite wala ñu commencé déconner man jàpp naa ne euh, jeunes yi dañu leen war a euh, wax ñu dal ba pare nag accompagner régime bi fi ñëw toog pour que ñu tabaxandoo liggéeyandoo Sénégal ensemble pour ne ak ci wàll bi nga ko mënee société civile bi ci côté société civile am politique yi seen côté politique jeunes yi seen côté femmes yi seen côté mais vraiment ñu accompagner président bi ba li nga xam ne moom la ñëpp na moom pour Sénégal bu boo xamante ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp ñu mun ko am. Denis Ndour jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay vice président wu Ligue sénégalaise des droits humains ñu ngi lay bu baax a baax. waaw maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp jërëjëf. leen di gërëm yéen ñëpp leen di gërëm.